confiance c'est-à-dire nous. c'est loolu loolu mooy réel politique dans l'État ils ont des missions. est-ce que lii bi ngay wax ne ne dàq nañu Aminata Touré waxuma la dàq nañu Aminata Touré mais jëlee nañu foofu Aminata Touré Aminata Touré dafa ëpp ñenn ñi mérite. nous avons des femmes de l'APR. Idrissa Seck dafa ëpp mérite Aminata Touré. du tout. dafa ëpp mérite dafa. Idrissa Touré Idrissa Seck ëppul jamais mérite Aminata Touré. surtout surtout nag non laisse-moi terminer mais est-ce que Aminata Touré ëpp na mérite nous avons des femmes de l'APR. ëpp nekk membre fondateur de la ëpp na mérite depuis 2009. mais là où Macky Sall n'était pas sûr même d'être candidat il était convaincu bu demee élection bu ci yàlla andee dina am dara mais mu am coobaree boppam bëgg dara. nous avons des femmes des femmes fonda fondatrices de l'APR. mais ëpp na mérite problème mu mérite. ëpp na mérite sax mën na am ci wàllu politique mais soo bëggee wax dëgg. kenn ku nekk si ñoom les missions sont tournantes président de la république lépp lu ñuy nommé par décret moom loolu pouvoir boppam la bu ne Pape nga doy na ma fii mën nga am mérite bu baax nga am compétence bu baax mais il faut donner la chance aux d'autres sénégalais. mais nag dinañ ko jàngat dinañ ci wax suñu xalaat. xalaat bi mooy dama ni. mais man ndax ndax Idrissa Seck. ëpp na mérite Aminata Touré loolu laa lay laaj. mais man respecté naa ci Idrissa Seck. non dama ni ndax ëpp na mérite Aminata Touré ci poste bi mu ko jëlee. xaaral ma nekk un homme politique. question bi mënoo ma ko mënoo ci tontu nekk un homme politique ma wax la ko rek. dem aux élections ah ñëw deuxième ñëw deuxième avec combien de pourcentage ça veut dire que il a quel que soit léegi nag ñu ubbi dialogue ak sa coalition. oui bien sûr ma ne kan ban parti bi tey mi fi mën a gagner ah, sans coalition dans ce pays ma ne ban parti bi fi mën a gagner tey ma ne ban parti bi fi mën a gagner sans coalition léegi avec ah, mais ñaata parti fi ne dem parrainage amuñu sax capacité am 1 pour cent bàyyi loolu loolu da nga koy noppi pap ñaata parti ñoo fi demoon dem parenage wër réew mi yëpp war a respecter ay normes yoo xam ne lii parrainage la ils ont été c'est pas le président de la République moo leen éliminé loolu fi ñu leen di éliminé conseil constitutionnel fale moo leen éliminé parce que n'ont pas rempli les conditions d'être candidat ñi ko rempliroon quel que soit c'était pas le choix Macky Sall nee ma éliminer ma ki jàppal ma ki ñi ko rempliroon ça a été validé par les candidats les cinq candidats léegi nag loolu problème bu bu demee ba am kii gagné réew nekk président de la république yor majorité assemblée nationale ubbi dialogue suñ tolloo ci diggante pour mu mun a ubbi yaatal xool d'abord réew mi président Macky Sall avant Idriss Seck di xool réew Macky Sall moo njëkk a xool réew dama gagné d' réew nekk président la ubbi dialogue. war a doxal. wa non war a doxal ak ñi nga gagné lool mais boo ñi nga gagné lool ma ne war nga doxal mais. war a doxal ñi nga gagné lool ma ne boo bëggoon doxal rek ak ñi nga gagné ba fàtte te surtout ce Covid là nga xam ne économie adduna bi yëpp pays yi gën a am moyen ci wàllu àdduna seen économie dafa dem down daanu carrément waxuma la Sénégal mi nga xam ne économie am tolluwul fenn ci réew yi gën a développé loolu li nga war a de d' abord da nga war a xëcc stabilité bi d' abord ñëpp réew mi stable d' abord mu bañ a nekk noo xam ne nañu taal nañu def lii nañu def lii du noonu la ñuy yoree réew du noonu la ñuy doxalee réew sama waa ji xelam benn la. ne yàlla man la yàlla dogal ma nekk président de la république mais naa leen woon loo xam ne xalaatuñ ko woon kenn du xalaat nit dina nekk président de la république. jël naa ñi nga xam ne dañu àndoon faroon ak man ci kujje politique bi responsabiliser leen mais am na fu muy toll ci wàllu économie dangay ngay réew mi bañ a jiital sa intérêt bopp bañ mais bu bul wax Aminata Touré rek Idrissa gënul mérité ñenn ñi nga xam ne ils sont dans nous dans l'APR nous avons des responsables dans l'APR qui méritent d'être d'abord euh, euh, euh, président conseil économique social en dehors d'Aminata Touré. mais président deful loolu. déedéet non. pourquoi deful loolu. boo buggee boo buggee réew stable. gën a yaatal discussion politique woone d' abord dimension boo xam ne ñu xam ne Sénégal nga jiital nii nii la war a doxale il pouvait prendre un autre gars dans per ne kaay yoral ma lii. mais jusqu'à gagner ndoog ay nit. mais oui dem fekk koo xam ni dafa nekkoon sa adversaire oui ñi nga ñii nga ànd ak ñoom ngeen. loolu yow sa diggante ak yàlla en vrai Aminata Touré def ci Aminata Touré def ci rôle bu ñëpp. teg bët ma ne en vrai culture sénégalaise loolu mun na ko rafetlu buuxante ci parrainage yi ñëpp gis ko. ñu ñafe ko mais yow yow tamit boo boo wax loolu. munoo wax ne ne wax dégg yàlla bu ñuy wax yàlla tax président de la ñuy falu nekk chef de l' état bu ñuy wax te yàlla tax chef de l' état laa la wax de nekk président de la république loo ci mënta participer ñaata nit a participer bokk ci membre fondateur la nekk ay cadre de haut niveau nekk des intellectuels de haut niveau yor diplôme ba yëy kayit amuñu privilège siège conseil des ministres amuñu privilège diriger primature amuñu privilège nekk conseil économique social amuñu nekk présidente au conseil des collectivités territoriales amuñu privilège nekk président de l' assemblée nationale ku ci am yooyu privilège ginnaaw yàlla ak yonante bi wax dégg yàlla amal nga Macky Sall président de la République njukkal. loolu soo demee ba nangu li nga ma responsabilisé woon ma xam ne ne mission laa doon dox dinaa la ne merci jëf ci li nga ma wóolu woon bisu nangam ba bisu nangam. mais mais d' accord. mais c'est la moindre des choses. mais loolu. yow mii léegi xam naa sa ngor. bañkat nga. d' accord ku la mus a teral ci àdduna di ne merci. du tere nag politique moom. c'est du damier. Euh, honorable ça loo xam ne ne. honorable une continuité est mën nga ma expliquer tey.